xabliya kaw na xalami yan xalumin law xika yaaman li saadati damin dafa ñaanoon foofu yàlla ngir saa buy bind mu am autorisation di toxalee ca lawhul mahfuz bi mu ko ñaanee suñu borom suñu borom defal ko ko moo tax mu wax ne kitaabati min lawxi rabbi tanqulu laa yamtari fiha nabihun yaqilu sama mbind ca lawhul mahfuz lay toxaloo te képp koo xamante ne am nga ak yeewute wala nga amub xel doo ci am lenn loo xam ne yaa ngi koy sikki sàkk kon loolu bokk na ci jagle yi nga xam ne mbindum Serigne Touba am na ko ndax day mel ni da ko tàmbalee ci yonent yàlla Idris mi nga xam ne moo njëkk bind ci kaw suuf ba ci jamono ji ñu toll euh, Serigne Touba rek lañ gis mu nekk koo xam ne buy bind day janoog lawxul mahfuz dafa mën a toxalee di bind ci xasida yi loolu jagle bu rëy la boo xam ne xasida yi Serigne yi euh, làmboo nañ ko mu mel ni sax suñu borom subhanahu wa taala dem na ba may ko mu mën a toxalee ci xalima ga لا يكسي يقول شيء لوح المفوز موتاح موحنة أكتب ناخلا من اللوح ومن خلمه وفي خروفي لم أمين كن لولو يا كارنادي